salaamaaleykum mbokk internet ci Siweulko TV ñu ngi toog ak babakar babakar ko wax ne Momo je té nak depuis démb suñu xol neexut parce que da am ku ak muy Aziz Dabala di ko jalé wa Sénégal di ko jalé babakar babakar nuyu lañ la. Eh, ma lay fay Gomis ndago Bamba Siweulko TV ziar na la bu wér na am waaw di la sante nak ci ñew bi di la djéggolu nak ci si wote bi sànq amul waaw ñoo far yow. mais démb bu nga déggee ni Aziz Dabala ñàkk na bakkanam la yow nan la def bu nga gisee image waaw mais ni comme ni mu méttee Sénégalais yëpp maanaam Aziz ku baaxoon la fu foo ko fekk mu ngi reetaan bu ñu mujjee gisante rek su ma juumul soirée Momo Dieng la waaw soirée Momo Dieng la mujjee gisante mais mu ñu kafree mooy loolu mais nag lu metti la lu metti la parce nga am sa doom xëy jékki-jékki rek xëy fekk ko ci appartement ñu rey ko këram moo jarbaatam waaw lu metti la lu metti maanaam neexul waaye sant yàlla comme man moom man moom taalibe borom man taalibe nooree ni laa man maam Thierno Ibra Faty waa daaru laa waaw daaru boo ko newoon na day naan alhamdulilah nga ne ko nit wàcc na mu ne alhamdulilah kon dañuy sant rek dinaan yàlla ko yàlla xaare àjjana te waaw yàlla ñu xoolaat daal ñu xoolaat dëkk bi daal ñu xoolaat dëkk parce que rey ñuy rey bëri na trop trop trop. mën nga ma see ñëwal. Aziz barki naa Mohamed si soo bi lañ xamante ni muy mu doonoon sama waay fu ma romb fis ma ne ko waaye Aziz na ko mu yaa jàmm ñu tooñante kafooree ku baax la barki alxuraanu karim foo ko fekk day reetaan foo ko fekk day reetaan foo ko munti fekk rek mooy loolu ay bëñam ngay njëkk seen. wallaahi jàmm rek lañ sekkoon waaw même bu ñu même même tey bu ma ko xamul woon sax maanaam li li li ko li ko dal nii maanaam képp kuy jullit dalaa war a metti maanaam doomu aadama la jullit la waaw jullit la te tey ku mu doonoon sa mbokk nit bu ñu nee jullit rek jullit mooy mbokk ñu ñëpp ay jullit lañ ñun ñëpp ay doomu aadama lañ waaw mais Aziz dafa doonoon ku baax koo ko fekk day reetaan mooy loolu. Mhm. billaahi ñu gis ñu gis tamit dernier clip bu Momo Dieng bi moom moo ko fecc di wane ay chorégraphie fii ak euh, Momo Dieng ak tout ça yow mu jege nag yow mu jege Momo Dieng moom nga ma see ñëwaat si Momo Dieng ak Aziz. kaam wala nag gis nga Momo daa bëgg Aziz wallaahi. moom Aziz da koy rey moom daa bëgg Aziz ba muy mujj soirée rek moom moom Aziz parce que Aziz tey waykat yëpp ko bëgg sax te boo ñëwee seenu Tarba Mbaye fekk ko fa El Hadj Keita ñëpp ñëpp ko bëgg ñëpp ay Pape Malick ak Sabel ak ñëpp parce que ñëpp la doon ñëpp la seeg ak jàmm fecckat yi ñëpp boo xoolee dernier clip yu bëri yi nga gis Aziz da ko fecc waaw parce que jàmm ni mu mel mën li muy def te lu muy def du si caaxaan mooy loolu. loolu la koy waaw waaw dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw yàlla maanaam fi fi mu jëm gënal ko fi mu jóge fi mu jëm gënal ko fi mu jugee. gis nañ tamit Youssou Ndour def vidéo ne erreur la ñëpp génn. waaw mais erreur yi mais Gomis loolu mun na dal ku ne Sidi xola billaahi wallaahi wa taala li ko dal nii mun na dal ku ne dañ koy ñaanal mu jóge fa. ñaan loolu ñaanal ñu ko kenn erreur la rek nit la nag doomu aadama la artiste dëgg la nit ñi bëgg nañ ko mais doomu aadama day dal ku ne day dal man mi par exemple dama doon génn yor ma carte d'identité ñu ramasse ma dara mais moom tamit damay dégg nit ñi naan non si maanaam li mu def tey ko erreur est mun na dal ku ne suba mun na dal ku ne gisoon nañ fi waali fan policier bi jàpp ko waaw tey moom mooy loolu doomu aadama la dañ koy ñaanal nag mu juge fa lu mu gën a gaaw a gaaw a gaaw te mu ñibbi këram loolu lañ koy ñaanal mais du dara erreur la rek lu yàlla dogal la maanaam gi nga doomu aadama pour nga noppalu suñu borom lu xew jàppeel ne suñu borom moo ko dogal daa war a am par force. bu nga déggee ni euh, euh, mu ngi en garde à vue yow lan la def. lu ma def mooy lu muy def ñëpp rek neexul kenn da ngay sa bopp rek bu doon yow la suba nga nekk fa. bu doon keneen ku la jege suba mu nekk fa moom ba ma jiyee damaa woo Magor Magor sama grand la suba teel kon suba teel yàlla dama dimbal ñoom ñëpp samay grand lañ ba si Matar Matar sama père la parce que Seydina Mohamed wallaahi sama père la Matar Diop suba teel sama papa la dafa mooy loolu wóor na yàlla dafa maanaam dafa doon koo xam ne ku baax la Matar ku baax Sidi nag waaw sekk nañ ni romante fis na ko ma mën a ko Sidi na ko yaa ngi si jàmm. mooy loolu mais fa mu nekk moom gënul kenn te buñ soñoon kenn du fa dugg ñi fa nekk ñi nga xam ne nekk nañ fa sax yàgg fa sax dañ leen ñaanal ñu génn mais bugguma man xam laa buggul nit kuy naan ay non Sidy lu mu def moo ko tey non non l'erreur est humaine mun na dal ku nekk ku nekk suba mun na dal Gomis suba mun na dal Babacar suba mun na dal ku nekk parce que erreur la loo xam ne tey doomu aadama maanaam yow booy génn par exemple da ngay génn sax yow tey fàtte sa poset président dangay génn fàtte lu ne est-ce que comprendre nga erreur boo tey tey nit day génn sax fàtte man ànd naag nit koo xam ne barki Serigne Touba Xaadim Rasoul dafa ñu waroon ànd jóge këram Liberté 4 sama benn grand ñu waroon ànd jóge këram Liberté 4 ñu añee këram mu dugg néegam sangu ba pare jël posetam teg ko si kii bi si kaw kamootam génn ñu ngi taal otom di dem jour ñu ngi waroon dem Mbour ñu dem ba si yoon bi oto bi côté Castor policier bi jàpp ko mu wax wax wax li dal Sidi nii barke yàlla mu wàcc jéggalu policier bi te kooku kilifa la ba ñu génne mu ne mu barke yàlla mu ko fàtte dañoo taxaw foofu noonu mu woote cag-cag ñu indil ko kii bi lu ngay wax nii dal na Wally Seck ba ba tout récemment mu ngi doon ko nettali moom tamit daa wote cag rek cag-cag pour ñu indil ko ay kayitam moom tamit waaw mais moom la rek mooy xam Sénégal dafa am ñoo xam ni ñu bëggee moom métti dañoo dégg nit ki naan ay noonoo diw diw lu warul def diw war na def erreur parce que nit la doomu aadama la lu dul daa la wax dara gëmis waykat bi artiste rek way yàlla moo dimbalee dëgg la star la mooy loolu mais maanaam bu ñu teggee mbiru star après yëfu nit mooy ñëw yëfu nit Sidi maanaam bu ko xamee woon noonu du ko defee noonu est-ce que comprendre nga mais yëfu nit day teg bu par exemple maanaam par exemple nit ki foog muy xalaat man yëfu nit daf may dal yëfu nit foog ñuy xalaat loolu noonu maanaam liy dal Babacar yëfu nit la loo xam ne tey Babacar bu ko dalee après si lay xam ne ah bu doon nii laa ko xamee du ma ko defee noonu est nit ñi foog ñu comprendre loolu foog ñu comprendre loolu gomis quand war a tey dara barki Seydina Mouhamed wallaahi billaahi wallaahi wa taala gis nga Sénégal dafa méttee dafa méttee nekk star soo nekkee star boo defee yenn yi sax ñu wax mooy loolu lii wëg lii wëg lii mais gis nga woykat yi ay nit kase lañ te ñoom xam nañ ay nit kase lañ woykat yi wala jaay wala woykat bi maanaam woykat bi maanaam li koy dal ni doomu aadama yi sax dañ ko koy yóbbee parce que moom day ragal a def dara ba def erreur bobu non da ngay ragal def ba ba erreur ben erreur bobu dal ko manam day dal kat yu bari bari bari. bari bari parce que da ngay gi damay dugg ci net bi gis wali sek def na li wala Sidi job wala Momo jeen def na li gi gis nit duggal commentaire doomu kharam la moko tay tey ma maa ngi ci si bi sax mais fekk way kooku lu mu def non tay ko de yalla xam tay ko yëfu nit la mu don ko def far mu djum dum la dama am kuma ma doon dem mu naam non Sidi ah dafa bëggoon toppandoo Wally wali sek mo da xawma lan lan esulika si lay diggan moom yo da nga neex eh, Sidi toppandoo wali sek bu dugal sa bobu jeex lol Sidi nga nga bay fi sa rak bay fi sa nday bay fi sa baay. Hmm. dañu waxante dëgg. ñom ñoom ñoom ñëpp mu soutien de famille la. waaw soutien de famille lañ soutien de famille worna yalla manam nit ñi nit ñi nit ñi. nit ñi foog ñuy nit ñi nit ñi foog ñuy comprendre loolu soutien de famille maanaam Sidi soutien de famille bu ko sañ bu sañoon tey heure bi mu ngay koy fekk këram màggal sëñ Tuubaa yi pour yow siir Sidi ak nu mu mel si Serigne Saliou màggal sëñ Tuubaa pour yow mu fekkoon ko fële gënal na ko non gënalu ko ma nit ñi nañ bàyyi lool nañ ko ñaanal mu jóge fële ne te delluwaat si liggéeyam loolu ëpp solo xale la yor na ay yor na mbooloo yor entreprise maanaam li mu yor entreprise ndax mu ngi siy dundal ay doomu aadama mu ngi siy dundal noo xam ne Gomis ay fii diw Babacar Momo Dieng la nekk man amul ku ma gënal Momo Dieng sama àdduna man Momo amul ku ma parce que Momo Dieng defal na ma lu ma nit defarul Momo Dieng féete na ma fu ma nit féetewul Momo Dieng taxaw na ma fu ma nit taxawul sooy wax nag nit dañuy foog ne Momo Dieng dafa def lu bëri maanaam yàgg naa si showbiz même yàgg naa Momo Dieng topp naa ko fu ne mais dafa reconnaissant moom reconnaissant bu mu reconnaissant tourné tourné di ko maanaam di defaat loo xam ne tey kooku maanaam yow boo doon def benn da ngay def fukk ndax moom moom fi mu ñu teg mais Sidy dañ koy ñaanal doomu aadama la maanaam xale la mu ngi liggéey mu ngi góorgóorlu mu ngi mu mu ngi mu ngi dundal ay doomu aadama di leen jox lu ñu yóbbu seen kër yi mm-hmm. kon maanaam nit bu mu ko ñaanal lu bon na ko ñaanal lu baax mu jóge fu mu nekk dellu fu mu nekkoon yor fexe ñi mu doon dimbali mu gën a yokk loolu lañ koy ñaanal waaw mm-hmm. ñu dugg si suuf bi eh, sànq yaa ko wax eh, Wally Seck daa génne oto moom tamit mu génne oto ba tolof tolof yi nii ñu ne dafa yoru permis non no man jàpp ma loolu de non Wally yow yow yow Sidi Sidi Sidi Sidi Sidi mu ngi doxal soobisam saa Wally dafa gis oto oto dafa rafet rek mu jënd ko Sidi SR la Sidi SR la de bu génnee Sénégal bu génnee fii am na loo xam ne promit foog ñu nangu ko SR la dafa yor oto bu rafet génn si mbedd mi gars yi filmé ko. lu tax yéen waa Momo Dieng duñ duñ dégg seen coow. c'est-à-dire dañuy gis Momo Dieng yor Range over sax yendo len ci wax alors que kenen benen artiste su sa benn auto ah day def buzz yeen ngeen yon sen Range Rover ba paré do len ci def bruit quoi. pourtant nag ñuy def bruit mo mo mo Momo maanaam Momo kaa war dara mo du manam du artiste kat la manam su woné du artiste mo nit jikko manam jikko bu mu yor. jikko bu mu yor moomoo barke alxuraanu karim du dégg lu ñaaw si doomu aadama moomoo du toog moomoo maanaam bañ jëw wala bañ bañ wax bu bari moo tax buggul fréquentation wallaahi du wax waxu jàmbur du lijjanti jàmbur lu mu am mu ngi ko bokk ñi nga xam ne ñu ñu sonn si moom ñu ko jege ay mbokkam yaa ngi dégg xëy na nag dafa bokkul ak gaa yi jikko dafa bokkul ak gars yi ji ko loola rek mais moomoo maanaam maanaam moomoo moomoo beneen level la nekk uh-huh. beneen level la nekk beneen level. beneen level la nekk démb bu nga gisee Youssou du def vidéo di masawu ne erreur la si si li jóg yow nan la def. ah mais da da war rek. parce que moom da kaa doon moom. waay xam li la war def fii kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara lu waaye def boppam doomu aadama. da xam li la war def gomis xam li la war def la rek doomu aadama moom maanaam tey gis nga tey am na loo xam ne foog xam gars yi waykatu Sénégal dañ ko nangu Youssou Ndour waykatu Sénégal dañ ko nangul parce que comprendre nga léegi nag moom mooy seen baay ñoom ñëpp mooy seen papa léegi nag moom moo leen war a taxawoo noonu ni ko Youssou Ndour defee noonu la ko Pape Diouf defee noonu la ko Waly defee noonu la ko Momo Dieng defee noonu la ko keneen ak keneen defee te pourtant gars yi dañuy dégg ñu naan waykat yi dañoo jubóowuñu seen biir ankay parce que xamul lu tax ku si am bànneex yaa ngi taxaw ku si am naqar ñu ngi taxaw ñoom seen biir di demalante di dikkalante dañ parce que démb boo xoolee rek Sidi ba affaire bi amee ñëpp ko dugal story même bu dee Youssou Ndour def na vidéo ñëpp seen yi dugal nañ Momo Dieng story Snap am da ko dugal Instagram am dugal ko story WhatsApp maanaam foog foog gars yi ñu xam ne ñoom ñëpp ñoo bokku ndey ñoo bokku baay su ndam amee c'est le Sénégal kii gañ dara amul leen ndam mënul am fii nii Wally Seck mënul am ndam wala Momo jee am ndam wala Sidy Diop am ndam ah muy dem feneen Sénégal lay ñëw comme ni nga ko waxee noonu tamit aussi gis nañ si di wali Seck tamit di ko encouragé di ko wax fort toi c'est-à-dire moom tamit di ko encouragé. waaw mais daa def lu ko war moom tamit Wally Seck Sidi rakkam la sa waay Gomis Wally Sidi rakkam la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Wally Seck bu Sidi amee ndam Wally am ndam bu Wally amee ndam Sidi am ndam tey mooy lima wax sànq rek da ngay xoolee bu moom moo nekk foofu tey yàlla bu mu a am bu doon tey moom moo nekk foofu noonu Sidi noonu la koy taxawoo maanaam Sénégal la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi amul leneen leneen gis nga kaa wala tey dara gomis barke alxuraanu karim amul leneen lu gën a rëy ñun ñun Sidi Diop di dem fenn ñëpp a taxaw wala Waly di dem fenn wala Momo Dieng di dem fenn moo tax dafa am sax lu ma bëgg lancer Waly Momo mooy le vingt huit bi le vingt huit décembre arena maanaam na ko Sénégal yëpp jàppale ndax xale la ndax xoola maanaam barki alxuraanu karim moomoo daa ñemee liggéey moomoo lu am liggéey ko may moomoo lu mu am liggéey ko may kaa war a tey dara moomoo su ma ko indiloon ku ma ko su ma ko doon indil nit ku ko war a may dix millions dix million ma dem fekk ko këram bu ko yëkkati nag kañ dem diw may la dix millions gorom ngorom du ko may sax mu jug dem maanaam pour moom lépp lu mu war a am maanaam lu ko nit di may rek na ko fekk si liggéeyam moom loolu la xam moom moom lépp liggéey la dañuy toog sax mu la koy wax lépp lépp liggéey la moom day wax mu ne la lu mu am rek Babacar liggéey leen yàlla yàlla mu gëmul mu ngi mu ngi gis moo tax li li xew nii yëpp moomoo ñaata at mu ngi way gumis ñaata at mu ngi way découragé wu lu ne dégg na ko moomoo moom bokk na si artiste yu gën a sonn Sénégal gars yi ñoo wax non non ne da na lu ne dañ ko yàq yàq nañ ko lu ne yàggul dara rek gis nañ nu mu demee yàq mu toog muñ du tontu moo tax. waaw léegi lan mooy secret Momo am benn son mu koy way ku liggéeyul doo am tus liggéey rek liggéey jaamu yàlla toog duggul si mbiru jàmbur demul si mbiru kenn maanaam barki alxuraan foo ko fekk mu ngi liggéey. moom day liggéey sax ba nga yërëm ko day liggéey ba nga yërëm ko damay toox nit nit nit na mais moom duñ ko gis sax mu fréquente fi ma ne leen mu moom sa nekko studio mu ngi liggéey moom liggéey la xam moom liggéey damay tëj maanaam ñu santaat nag sëriñ tubaab mi ñu may ñu fekkee màggal gi màggal gi ñu fekkee koy ay ati at maanaam gars yi tamit du leen lancer ñu daw nànk si oto yeeg scooter yi ñu daw nànk dem màggali ñëwaat maanaam ku tedd ki dimbali ñëpp ñu dem yegg si jàmm ñëwaat si jàmm loolu laay ñaanal ñëpp te yow tamit ñu lay sant Gomis yow yaa ngi jàppale ñëpp yaa ngi sonn si ñëpp yaa ngi sonn si artistes yëpp waaw yow dañ lay ñaanal mooy Gomis naa la wax nañu yéenante jàmm àdduna jàmm rek a fi xaj ñun ñëpp am nañu yéenante jàmm maanaam lu lu dul jàmm jàmm ko gën gomis ku nekk na yéene sa moroom jàmm wala ku nekk doxal luy sa wërsëg nga jël ko doomu aadama mënoo lekk lu dul sa wërsëg nit du fogale sa wërsëg bu la boo lekkee sa wërsëg bëgg lekk wërsëgu jàmm da ngay fanne barki Seydina Muhammad doo ko lekk nañu nañu ko maanaam nañu na ku si nekk rek li la yàlla jox nga dooloo ana siiwal TV mu ngi doxal keneen ak keneen a ngi di doxal te teewul Siweul TV lu mu am mu ngi dox.